nuyu leen bu baax a baax tata ay euh, euh, famille bi nga xamante ni ñoo di la famille Diallo Kounda Diaby Kounda euh, depuis mosquée ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci matinal bi ma dalal Kajoor mu ngi ci plateau bi Kajoor maa ngi lay nuyu dalal ak jàmm. dalal ak jàmm Kajoor Cissé euh, la revue web dañ koy tàmbali nag ak waa CEDEAO ñoom nag ñu ngi demander à ce que euh, ñu respecter li nga xamante ni moo di le calendrier électoral bi nga xamante ni jàppoon nañ waaw ci ab bataaxal la bi ñu fësal démb ndax euh, bi njiitu réew mi njëkkee génn toxal bëgg toxal élection yi Euh, ñoom génnoon nañu wax waaye mu mel ni la ñu waxoon nit ñi dañu jàppoon ne daanaka euh, dafa xawla yemamaay euh, par rapport ak li nga xam ne moom mooy gravité situation bi daan nañuy fësalaat ab communiqué démb la ñu bëgg nag nee nañu Sénégal dañ ko xamee woon daan ko bàkkee réewum démocratie nu fexe rek ba loolee nga xam ne bàkkam la woon mu mën a sax ca loolee nag dañu bëgg. Euh, lii nga xam ne moom mooy élection yi ñu euh, décidé woon euh, amal ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ñu fexe rek ba daal di ci tënku ñu woo itam population bi naka noonu classe politique bi ñoom ñëpp kenn ku nekk nga fexe rek ba mhm. moytu li nga xam ne moom mooy yee fitna ci biir réew mi ñoom ñuy fàttali itam. ne kenn ku nekk am nga sa responsabilité si li nga xam ne moom mooy dalu réew mi ñuy encouragé ne nañu classe politique bi ngir mu euh, gën a mu am nu mu gën a gaawee euh, daanaka taxawaay boo xam ne dafay delloowaat li nga xam ne moom mooy calendrier électoral bi ñu fixé woon euh, ci élection ngir ñu amal ko deux mille non vingt cinq février deux mille vingt quatre bile ñoom nee nañu nag loole moom moo tënku ak li nga xam ne moom la charte réew mi daal di euh, xamle Euh, ba tax nag ne nañu euh, benn yoon amul benn yoon foo xam ne constitution bi may na mhm. euh, njiitu réew mi mu yokk wala mu wàññi lenn ci mandaam kon nañu fexe ba loole ñu daal di sàmmonteeg moom daal di nañuy méttitlu itam li nga xam ne moom moo am ca assemblée nationale ñi nga xam ne daanaka ay député lañu yoo xam ne dañu leen jëlee ca parlement ba ca jamono ji nga xam ne ñu ngi doon amal ay euh, vote boobu le loi ginnaaw CEDEAO euh, waa Washington itam àddu nañu ci crise politique bi nga xamante ni am na fii ci Sénégal ñoom ñoo gën a daanaka euh, dëgër sax ndax ñoom dañoo euh, tudd Macky Sall carrément joxoñ ko baaraam euh, wax ko nag ne na fexe rek ba élection yi ñu amal ko ci vingt cinq février ba ñu ko appaloon ñoom loolu la ñu daal di fësal département Euh, d'état américain moom moo daal di fësal bataaxal boobu di xam ne nag njaxarem njaxare euh, réewum États-Unis ci li nga xam ne moom mooy xew jamono ji ci Sénégal te ñu xamee woon ko ci euh, réewum démocratie ñoom daal dinañuy ñàkk rafetlu itam li nga xam ne moom mooy député ya ñu jëlee ca assemblée ca jamono ba ñuy voté boobu lépp loi wax nañu itam sàkku nañu itam Sénégal ngir mu delloo nu mu gën a gaawee mhm. li nga xam ne moom mooy connexion bi nga xam ne dafa ko dal di euh, coupé boobu ba léegi euh, waaye fexe itam ba ñii di taskatu xibaar yi mu euh, bañ mu ba arrêté di leen bunt xatal daanaka loolu lañu ñu mën a tënk ci communiqué bi nga xam ne moom moo bàyyoo ko foofu ca département d'État américain connexion boobee sax ci la ñuy àddu mu mel ni daal dinañ koy indiwaat. waaw xam naa euh, au moins ñoom dégg nañu seen euh, kàddu ndax. Euh, connexion bi dellu siwaat na ginnaaw lu ëpp vingt quatre heures yoo xam ne coupé woon nañu connexion internet wu données mobiles yi maanaam yi nga xam ne ci téléphone yi dañu ko daal di coupé woon yëf yi dellu siwaat na depuis minuit démb Euh, nii nañu nag euh, gouvernement bi mu ngi ko coupé woon ginnaaw ba mu jàppee woon ne euh, ñu ngi ci doon a jàllale ay message yoo xam ne dafa yee fitna moo taxoon ñu daal di ko coupé daal nañ koy delloo nag organisation des travailleurs ak ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàll wi ñoom ñëpp taxawoon temm ngir xool nan la ñuy def ba ñu delluwaat connexion bi ndax bari nañu ci liggéeyee. Mm-hmm. te boobu ba léegi seen liggéey daal di taggatémbe Euh, fas yéene woon nag euh, tëral sax ab plan ngir euh, jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jëloon bi la dogal tey gi nag ni ki biig daal nañ koy delloowaat. Sénégal éliminé waaye nag kan bi mu ngay woy mu mel ni xam nañu équipe yi nga xamante ni wax nañu tase ci demi-finale waaw comme na ko waxee euh, carré d'as bi nag euh, dafay euh, composé ñi nga xam ne ñoom ñooy Côte d'Ivoire mi nga xam ne moom moom moo nara jàkkaarloo ak bafan am li kii di Afrique du Sud moom mooy jàkkaarloo ak Nigéria Côte d'Ivoire jàkkaarloo ak kongo bu ñu taxawee nag si. Euh, ñaari duel bu bu bu bu njëkk bi di euh, Afrique du Sud ak nigeria euh, Nigéria muy nag match boo xam ne bu métti lay doon ndax Super Eagles yi ñoom daanaka ñoo gën a miin mhm. niveau bi ñu toll nii ndax kan 2024 bi moom mooy nekk seen ñaar fukkeeli participation ñuy bokk ci boobu lépp jongante Euh, ñu am équipe bu dëgër boo xam ne euh, seen sélection bi euh, mën nañu ne bi mooy quinzième fois ñu yegg demi-finale seen taxawaay seen xarañteef ak mhm. seen dëgër tax nag Nigéria ñoom boo xoolee bi compétition bi tàmbalee ba léegi benn yoon rekk moom lañu am moom la ñu jël bu Mm-hmm. maanaam jël bi ci match boo xam ne mu ngi doxoon seen diggante ak ak Guinée équatoriale ca euh, premier tour yi la woon euh, ñoom ñu daal di nag amal lu toll ci euh, quinze quinze si quinze quinze demi-finales yi daanaka huit yi ñoom dañu ko laaj donc boo xoolee. Euh, daanaka dinañ dem mais du ñu yegg loolu lañu ñu daal di xamle. tey ji nag euh, bi yoon ñu bëgg euh, jàll lu ni mel boo jëlee itam Afrique du Sud. Euh, même chose moom nag daante li mu mm, tolluwul euh, dayo ak Nigéria waaye mën nañu jàpp itam ne moom nekkoon na champion d'Afrique ca atum 1996 euh, tolloon nekk ki ñu toftal ci champion bi 1997 euh, jëloon troisième place bi ci CAN 2020 ñoom itam boobu ba léegi lu toll ci ñaar fukk ak ñeenti at daanaka toog nañu. te yegguñu ci euh, niveau bi ren nag ñu ñëwaat ak euh, doole. Mm-hmm. Euh, bëgg nag daal di yegg fi nga xam ne moom mooy sommet bi ci treize confrontation yoo xam ne nag dox na seen diggante ak Afrique du Sud lu toll ci ñaari yoon rek. enfin seen diggante ak Nigéria ñaari yoon rek la Afrique du Sud gagné Nigéria te nekkuloon ay match yoo xam ne euh, phase finale de compétition la woon euh, sept fois la Nigéria gagné Afrique du Sud euh, dernier face à face bi nag mu nekkoon 2019 CAN 2019 ak benn quart de finale boo xam ne ñoom ñoo ko jëloon ci kaw nigérien yi muy deux buts à un loolee moom mooy un li nga xam ne moom nañu mën a tënk si ñaari équipe yooyu nga xam ne mm. ñoom ñooy bokk ci demi-finale yi ñu jàpp ne moom mooy euh, affiche bi gën a choc ci demi-finale yi. alors loolu nag moom du yomb jërëjëf Kajoor ñu jaajëfal bu baax a baax euh, ñu rebondir un peu ci info bi nga xamante ni moom nga mujj joxe kan bi nag moom ah, mun naa ne yaay beaucoup beaucoup de surprise ma dalal pap pap très bien alors Kajoor comme ni ma ko doon waxee kan bi kan la bu nga xamante ni surprise yi ci am bari na trop parce que mën naa ne équipe yu bëri yu nga xamante ni yaakaaroon nañ ni euh, xëy na dinañ gën a sori war a sax àgg final daanaka ñoom ñëpp dem nañu. Mm-hmm. man man lecture bi ma ciy def rek mooy ça va être une lecture globale. Mm-hmm. Euh, dire que tout simplement euh, ku yéex tuuti rek ñu bàyyi la fi. parce que bu fekkee Sénégal moom moo nekk champion en titre mu ñëw arrêté quart d'autres ont travaillé mhm. surtout les plans nag parce que défaite aussi danga nga koy def danga nga koy analyser globalement oui. Euh, peut-être euh, techniquement am na physiquement ak yooyu mais amoon na yeneen contours yoo xam ne peut-être dafay contribuer à à à à l'échec d'une équipe donc euh, liggéey la boo xam ne mhm. équipe yi yëpp ñu ngi koy def réew yëpp yoo xam ne bëgg nañu avancer loo seen football ñu ngi koy def que ce soit mu nekk un travail interne boo xam ne après fruit bi lii lay joxe wala ñu ñu indi entraîneur boo xam ne dañ ko may temps temps temps bu doy mu mu mettre en place benn benn genre football boo xam ne moom moom moom mooy payon euh, loolu noonu yëpp dafay wone ne que euh, le le football dafay dafay avancer un peu un très vite du coup doo doo gagné dara rek après nga nga nga dormir sur tes lauriers parce pendant ce temps là d'autres aussi Euh, travail ñi ngi étudier comment faire pour que pour te détrôner yow aussi euh, yaa ngi ci kaw da nga war a xool nooy def pour maintenir ñeneen ñoo xam ne peut-être ñoom nga nekkaloon final nga gagné leen ils vont essayer de revenir en force donc c'est un peu ça le travail mm fait à travers les fédérations j'espère que euh, ñun tam on va pouvoir apprendre nos erreurs pour mën a Euh, avancé. ñu ngi waaj a jëm ci demi-finale yi Nigéria moom on sait tous que c'est une grande équipe. Mm. waaye y a la Côte d'Ivoire aussi vraiment qui montre euh, la volonté justement de gagner cette CAN. Côte d'Ivoire moom moo surprendre presque. ñëpp parce que mm. bon man ba suivre Coupe d'Afrique mais nga jël 4 buts euh, ci benn match et puis euh, deux défaites. et puis nga dem ba ba si presque dernier quart di waaj dem final ça si c'est quand même extraordinaire ah, pour pour équipe bon bien que avant début compétition bi bokkoon na si favori yi même équipe bi nu mu nekkee nu mu defee euh, ni mu defee revers ni bett nañu bëre de toute façon ñiy mujj quatre équipes yi bon kenn xalaatu ko woon peut-être à part Nigéria nga xamante ne vraiment ils ont super attaquant euh, bon ñeneen ñi RD Congo bon euh, kenn xalaatu ko pour man bon c'est une c'est pas une grande mais ils ont montré de belles belles choses ci li nga mhm. xamante ne moom mooy euh, moom mooy compétition bi mais boo man équipe bu nga xamante ne yéene naa ko peut-être mu gagné mooy Afrique du Sud parce que moi j'ai toujours euh, adoré les Bafana Bafana. Mhm. xam nga même su fekkee ni sax amoon nañu amoon nañu équipe au début amoon nañu une grande équipe. Après, ils ont sombré. 2010 euh, ils ont essayé de construire bu ñu organiser coupe du monde ils ont essayé de construire une équipe bu nga xamante ni ça tient après bon parce que équipe moom da nga koy ay jeunes ñoo koy yore. Mhm. su fekkee dafa yàgg te gañewul ñoo ñooñu dañuy màgget te soo ko renouvelé wul euh, du sotti et puis am nañ championnat bu nga xamante ne aussi tamit championnat bu bu compétitif la. Mhm. nga am championnat après sa équipe nationale bon demeewul noonu c'est un peu moom moi je Euh, je suis contrant pour eux les les Bafana Bafana euh, peut-être beneen bi moom mooy euh, les Super Eagles ñoom bon bi ñuy gagné en 2013 waaye je pense que c'était en 2013 boobu. Euh, c'était pas une grande équipe je pense même ko équipe bi moo gën a moo gën a dëgër ko équipe boobu donc bon voilà ñoom aussi tamit bon peut-être dinañu arriver au bout et puis pourquoi pas ki nga xam moom mooy meilleur joueur championnat meilleur joueur en Afrique di Victor Osimhen peut-être bon mu gañee Euh, li nga xamante ni moom moo di trophée bi on on on on ñu ngi ñu ngi def doute si si euh, participation. ñan ci par rapport ak moom waa. en fait bon euh, xam nga attaquant nekkul. Euh, surtout ngay dugal ay but tout le temps tout le su fekkee moom ñëpp xam nañ ne bon attaquant bu mag la wa coupe du monde coupe du monde 2006 Italie moo gagné coupe du monde bi attaquant bu nekkoon numéro un si attaque moom mooy Luca Toni mais Luca Toni si compétition yi xam nga Italie moo jël coupe du monde. Mhm. Mhm. benn but la am si coupe si compétition bi. pourtant Italie moom moo gagné moo gagné mondial bi donc et puis il avait un record Italie Fiorentina la doon joué mu gagné presque quarante bon trente huit je pense trente huit buts la amoon si saison bi historique la woon c' était un record. Mhm. mu ñëw coupe du monde benn but la dugal donc ça veut dire que bon. Euh, voilà mais su fekkee su fekkee sa équipe performant na et puis am nañu une bonne défense boo xamante ne bon euh, ça leur permet un peu de tenir la route donc pour man bon voilà ça bon ça va pas parce que sa ora moom mooy euh, moom mooy nekk ci kanam quoi donc on le on leur espère lu nga xamante ne moom mooy la chance je sais pas moo xam ne nañu au bout. mais bon on attend voilà en fait bi. c'est on a on a juste annoncé malaise bi mu am moi je parlais pas. ah d'accord ok pour man wax quoi malaise bi la malaise bi ah, de jouer quoi. en tout cas on attendra de voir la suite mais man moom. gis naa trop Nigéria ak Côte d'Ivoire ñu tase ci final bi. dina neexal dina neexal CAN bi en tout cas moi j'aimerais bien. quand même la Côte d'Ivoire. la Côte d'Ivoire euh, vraiment participe moi j'ai beaucoup d'amis là euh, c'est mon deuxième mhm. pays après le Sénégal. waaw j'espère que dinañu jàll. vraiment Pape Malick ce sera entre man ak yow. Euh, <laughs> non man aussi non classifié est-ce que je suis pas je suis pas je man comment dire. Euh, si Ivoiriens yi laa gën a. Ah, laa gën mais bon je moi est-ce que je les supporte je ne sais ah. supporte en tout cas mérito nañu jël ko hein franchement en tout cas man yéene naa leen ko on attendra nag de voir la suite mais en tout cas benn final bu nga xam ne dañu gis Côte d'Ivoire ak le Nigéria ñu tase finale boobu moom macha allah dina neex waaw on va beaucoup se régaler parce que xam naa ni du yomb alors. internet bi démb ci waxtu wii ñu ngi def émission mais c'était difficile amuñu woon internet. c'était impossible. très <laughs> difficile. kañoor a rek ne daa mel ne internet bi coupé nañ ko de <laughs> mais tey dafa mel ni agsi na mais dama si jaaxal mbir mi daa gaaw de buñ ko daan coupé day gën a yàgg gën a jël ah, temps. oncle hmm? Sam moo yëkkati cour gi <laughs> mbolde bi. Oncle Sam moom fu lu mu wax rek àddina bi yëpp dang dang ciy tënku. waaw merci beaucoup pour moom j'espère que dina continuer de toute façon. Hmm. xam nga boo xoolee sax ñoom dañuy mel ni ñu dépassé par les choses parce que ñoom am na ñu bëri ñoo xam ne yëguñu sax ne internet bi dañ ko coupé wax dëgg yàlla. Mm. parce que y' a tous les moyens pour nga mën a connecté donc ça sert quoi finalement. Mm. di di ko coupé ay internet ak yu kenn xamul. et puis mm. ça ça donne benn image bu bu bizarre lan la ñuy nëbb lan la ñuy kii ak yooyu noonu. donc ça n'a pas de ah ku bëggul télé génnee ku bëggul télé génnee doo bëgg doo bëgg ñu ñi nga xamante ne Euh, am na ñuy connecté mais ñi nga xam ne ñu néew doole. parce que c'est pas donné à nga connecté wu si wifi am na ñoo xamante ni seen téléphone lañu yaakaar. surtout ñu nekk si marché yi maire yi nga xam ne ñoo nekk si marché yi di jaay. ñooñu seen téléphone lañu yaakaar di recevoir ay lu nga xamante ne mooy. Euh, su xaalis wala wala laneen ak laneen. Mhm. ñi nekk sax si e-commerce bi ñoo ci gën a solo. waaw ñooñu ñooñu c'est gens yoo xam voilà c'est c'est difficile quoi. parce que si loolu lañu c'est difficile. et puis ministre bi dina fi jaare c'est que lii moom mooy andi dérive def na ko pour une première fois et puis justificatif moom moo nekkoon lan moom mooy waaye bon nit yi dañuy def ay je sais ay message yu haine message yu moom moom mooy lan boobu mu jàll mu neex après tey nga tolloon di ko mais peut-être ñi nga xamante ni ñoom ñoo si wax ñi si war a wax ñoo si ñoo wax pour ñu rétablir ko parce que boobu loolu moom doxul quoi dëkk boo xamante ni su fekkee mm. dafa am fu xumb fii xumb ñuy ay manifestation am ñu ne nañu couper internet moom loolu moom loolu doxul ko parce que nit yi aussi tamit euh, xam nga liberté dafa bëri façon mm-hmm. euh, liberté nit yi di jëfandikoo lu nga xamante ni moom lañu am loolu si ak nit la bokk par exemple nit ki am na droit mu informé wu fu mu mun ni tool bu fekkee da nga dagg loolu moom fan lay jëlee information ñi nga xamante ne am nañ droit liggéey mm. liberté de travail

xam nga nekkul sa mérite nekkul da nga aay nekkul da nga am compétence parce que dangay ngay def politique. xam nga am ko. di dem di di dóor nit yi di dem di wax ay boole ma voté lii fii loolu moom moo tax bu fekkee da nga da ngay am humilité un peu parce que yàlla nu mu lay joxalee nu mu lay joxalee pouvoir nga ngay ngay décider noonu la koy nangoo vite ko nangoo bu fekkee da nga doon wane ngay wane réewande wala ngay wane arrogance bon loolu loolu. doxul ministre la communication li nga wax ni waroon na ko dégg. parce que li mu wax li mu wax euh, ci ci RFM. Mhm. Euh, du waxu kilifa. du waxu nit du waxu mag. déjà nga ñëw nekk kilifa nekk nekk nekk mag am na loo xam ne waroo ko wax ay jaay ginaar ba ñii jaay ginaar daf leen gën. gënu leen jaay ginaar métier bu noble la daf leen gën ba mu jaay ginaar rek tëb kii wala ñi jàng daara ba ñëw di di di bëgg jiite réew mi daf leen gën. gënu leen benn yoon. lan mooy problème bi. cest loolu mooy ñàkk non seulement beew nañu. Mhm. réew nañu. Euh, c'est-à-dire que xamatuñu sax seen bopp en fait parce que euh, fekk koo xam ne dafa ja dafa génne daara yow nga ne yow yee yow yaa demoon ci da ci université yu kawe yi tey moom mu ñëw mettre en place entreprise boo xam ne des centaines de de de sénégalais lay lay lay lay fay ñuy liggéey mm-hmm. ñu ne déetuwaay mu mu dàkkaan baatu mairie mu am ko nga ñëw taxaw nga nga ne yow ministre de xaw ma lan yow yaa koy xas xam nga ñàkk xam sa bopp weesuwul lool. dana waa alors man en tout euh, yu nga xamante parce que jeunes yi léegi dañu commencé di entreprendre bien vrai que emploi des jeunes benn instant defoon na défaut ci dëkk bi mais da gis ne que yu bëri ñu ngi rayante di entreprendre surtout euh, ci li nga xamante moo di e-commerce il a beaucoup de jeunes qui gagnent aujourd'hui des millions tout en restant chez ne ñu ngi seen kër di liggéey donc ñooñu ils travaillent à grâce à l'internet ñooñu joxoo leen liggéey. ñu wutal seen bopp liggéey. nga dem dagg connexion bi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyee wax lépp. loolu wax kat aussi xam nga ah. njiit par su fekkee da ngay jiite euh, soo amul capacité de discernement euh, lan laa war a def lan laa warul def lan mooy su ma defee dara lan mooy. conséquence yi loolu soo xalaatulee. si mhm. ay tuuxi doona rek ngay ngay def da ngay def yoo xamante yu bizarre yoo xam parce que ministre bi mu def et puis boo xoolee tamit gis nga ministère de la communication avant moom parlait ministère de l' information mooy sous Senghor moom gisee mhm. ministre de mhm. ministre euh, ñoom ñooy avant ministère boobu Senghor da ko fonkoon parce que parce que ministère bu nga xamante ñoom d'habitude ñoo daan nekk porte-parole gouvernement bi porte-parole gouvernement bi c'était quelqu'un boo koo un intellectuel quelqu'un qui avait fait des études affaires voilà xamante ne bon xam na quoi mu ñoo ñoo ko daan yore xam nga soo jëlee par exemple maa ngi doon wax papa Abdou Karim Fofana ma Abdoulaye Fofana. Mm-hmm. maa ngi doon wax Alioune Tall mooy te ñu ko nag ah Mamadou Dia après ñu tëj Senghor def dil bi ba leen. Euh, bon en fait Djibo Leyti Ka aussi tamit nekk Djibo Leyti sax moom moo révolutionné un peu le le poste mais boo xoolee ñooñu ñëpp ñooñu ay vrai homme d'état lañ ko. nga comparé ak léegi nii gouvernement Macky Sall bi waa ji nga xamante Idriss Seck sax. Idriss Seck Idriss Seck Idriss Seck tamit yoroon na poste bi temps wu Diouf mooy bi waa PDS duggee si gouvernement bi moo boo xoolee léegi nii. Mm-hmm. mais franchement. jata waa ji jatara la remplacé ah bon. y a pas photo. chose quoi da gis ñoo xamante ne ñooñu dañuy en fait ñooñu compétence moo leen doon teg si post ministère mais fii nii ñii dañ leen récompenser par la politique seen compétence politique te ay politique moom mën mën na la sos. Euh, di double jeu nekkul di jaxase ay affaire di dil fii loolu moom moo moom moo ba pare ba pare aussi tamit nga am ñoo xamante ñoo nekk sa ginnaaw ñu lay kel parce que oh, kii li nga xam sax Moussa Bocar Thiam booy Farba nga Farba Ngom ñëpp a xam ne nu mu puissant bi si euh, si Macky Sall at ñu nga xamante ne ñoom ñoo ko wër euh, côté Ourossogui yooyu noonu foofu foofu la dëkk voilà ñu ñu épaulé ko bu fekkee dañ ko pouponné ba mu ba mu ba mu agsi fii ñëpp xam nañ ni mu demee et puis benn transfuge politique la jóge woon PS nekkoon fa après nga ñëw et puis moi je me dis que c'est avocat moi je je moi j'attaque pas les les les gens parce que parce que tout simplement en acte yi nga xamante ne moom la def acte yoo xam acte d'incompétence la parce que fekkee ne nga ne da ngay nangu signal wala ngay tëj ay données mobiles mm-hmm. alors que yow xalaatoo conséquences yi nga xamante ne moom moo siy dem ça veut dire que mm-hmm. yow bon voilà xaw ma yow nan ngay nan ngay réfléchir loolu moom moo tax en fait ça pose problème parce que ñi nga a doxal am humilité ba pare aussi tamit di concerté wu. nit mm. da ngay concerté wu ba nga jël ay décision nga laaj ñi nga xamante ne ñoom nga war a laaj ban décision ëllëg la mën a tukkee moom est-ce muy jël décision bi xalaatoon ni am na ay ay baadoolo yoo xamante ne ay baadoolo yoo xamante ne ay baadoola bi muy jël décision bi sax xalaat ne am na ay baadoola yoo xamante ne liggéey moom pourtant amul problème mu je sais pas amul problème mu dépense mm. peut-être mais am na ñeneen ñoo xamante ne am nañ problème mu dépense loolu moo tax il faut la concertation décision bu fekkee da ngay mhm. jiite décision boo mënti jël nga concerté nit yi ba laaj leen ban conséquence moo mën a tukkee ci décision bi ba ëllëg boo génnee fenn kenn du la yuuxoo wala ñu ne yaa fi defoon lii parce que il faut éviter ça bu fekkee da nekk njiit il faut être responsable nekk dans la mesure et puis euh, bon liggéey normalement foofu noonu sax la ñuy muy couper signal bi mu mel ni taskatu xabaar yi dajaloon nañu doon benn say fas yéene xeex li nga xamante ni moom la ñu teg waa Walfadjri teg seen ay stratégie et je pense que c'est un bon début Kajoor ah, c'est un bon début j'espère que ils vont ils vont tenir le parce que euh, il a la communauté internationale qui agit parce que boo xoolee euh, le département euh, d'État américain aussi junj na ko euh, avec la fermeture de de de ces organes de presse là j'espère que dina dina porter ses fruits et, et ce sera l'occasion peut-être ça va être un nouveau départ mm-hmm. pour la presse mu mu ànd continuer di di di di di di déformer bloc autour de de de ces agressions là bu ñu décider dara na ci ñëpp tënku parce qu'il y a un plan d'action boo xam ne ñoom nar nañ ko dérouler que tout le monde sans exception képp ku ku ku nekk ci presse bi nga mën nga respecté ko parce que c'est seulement mhm. ci loolu la ñu mën a euh, jëlaatee suñu démocratie parce que tey jii boo xoolee de part et d'autre mhm. euh, presse bi ils sont tellement euh, ma ma ne ko suñu suñu suñu suñu liberté de presse dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko agressé tellement que tey ñu bëri ñemeetuñu wax. dëgg kenn ñemeetul joxe sa avis. Mhm. kenn ñem ñi am sañ-sañ def ay chronique ñemeetuñu def seen chronique ils n'osent plus aller jusqu'au bout de leurs idées parce que tout simplement yaa ngi yaa ngi ragal soo waxee li nga war a wax. ñu tëj la wala ñii saaga saaga la saaga la wala ñu dem génn cadre bi nga waxee ñu dem ut say mbokk ñi fa jotoon def dara ñu ñëw indi exposé ko à la place publique c'est-à-dire on descend euh, trop bas par rapport ak yenn yenn détails donc loolu mooy waral loolu noonu yëpp mooy mhm. waral lii mhm. te su ñu amee benn benn benn force unique boo xam ne mu ñu yëkkatandi di loolu peut-être ça va ça va permettre de régler ouais. certains problèmes non en bon mais c'est c'est toujours c'est toujours bien que presse bi euh, bon la presse de façon générale que ñu ñuy def ay combats yoo xamante ne combat de principe la liberté de la presse. surtout ça euh, combat de principe liberté démocratique bon ça c'est bien pour la presse et tout mais man problème bi lu ko yàq moom mooy ñi nga xam bëri na ñoo xamante ne bokkuñu ci aujourd'hui boo xoolee léegi journaux yi wala ay site internet yi. Mhm. ñooñu ñoo yàq affaire bi de telle sorte que boo xam ne presse bi su fekkee dafay mën a yenn combats yi duñ leen respecter et puis on les sent pas trop. Mhm. parce que y a beaucoup de d'intrus yoo nga xamante ne ñoo nekk ci biir au lieu ñuy defar ñu ñuy yàq. comme xam nga li nga xamante ne ñoom la ñu reconnaître sax da nga naan est-ce que yow reconnaître lañ la non yow reconnaître luñ la donc nekkuloo presse bu crédible kii moom moo crédible donc loolu bokk na si li nga xamante ne loolu yàq na presse bi politiciens yi dugal leen si ay mbir parce que presse ak politique euh, am na benn moment boo xamante ne am na ay point positif am na foo xamante ne am su fekkee ne par exemple da nga ubbi média dans le seul but di soutenir benn homme politique wala dans le seul but pour yàq objectivement sans informer. Mhm. loolu ça pose problème pour man bokk na si situation yi nga xamante ne occasion yi nga xam ne gangrène na loolu presse bi de telle sorte que moom mooy limite bi mu nekk handicap bi ba nga xamante dañu mëne seen combat yi nga xamante au but. bi fi jàpp jàpp nañ fii fii ay journalistes yoo xamante ne. mais presse bi c'était divisé. yaa ngi gis ñii dañuy nekk fii nii sur sauf que dans le principe di nga ne waaye lui c'est wala telle personne c'est un journaliste donc moi mais loolu bokk nañu am ñoo xam ne dañuy wax waaw de toute façon mën du ma parce que telle personne c'est pas un journaliste c'est un militant telle personne donc yooyu y a beaucoup de yi nga xamante ne moom moo nekk ci biir ba nga xam ne bu fekkee ne dafay dañuy am benn combat di koy mëne pour euh, xeex benn affaire kii euh, comment dire combat bi yëpp bi si war duñ ko si def parce que tout simplement am na ay failles ci biir comme ni ma ko waxee am na yoo xamante ne. ñu ngi si wala ay médias wala ay journalistes yoo xamante ne boo kenn reconnaître leen. et puis bu li dal Walfadjri bañ a dal beneen télé. il faut que ñu jóg xeex ko. et c'est aujourd'hui même tey lañ ko war a xeex. parce que si on laisse faire li dal Walfadjri tey suba mën na dal. mais mais wala mu dal beneen télé mais comme lu ma wax mais loolu dafa dafa am euh, xam lu dafa am affaire c'est corrosif quelque part euh, parce que comme li ma dafa am ñoo xamante ne. presse bi mënuñu booloo ñoom ñëpp ñëpp bokk parce que dafa am ñoo xamante ne difficile ñu reconnaître leen comme presse am na ay journaux yoo xam tëj nañu fii dañuy tëj au nom d'un homme par exemple. Mm-hmm. am na ay site internet yoo xamante ne jug nañu seen presse pas objectif nekkul pour informer mais pour yàq la comme xam nga léegi comment ça se léegi lu ma bëgg a wax moom mooy. il faut juste une en externe ñu leen ñu leen gis pour mën te am société civile bi c' est extrêmement difficile que ñoom ñëpp ñu réunir loolu waxandoo benn kàddu c' extrêmement difficile parce que xam nga tax am na ñoo xamante ils sont tel homme politique am ñoo xam ils sont proches de tel parti politique te loolu handicap la pour au regard ñi nga xamante ne ñoo mën a satisfaire seen besoin ñu mën ko def Euh, tout simplement parce que duñ ko def parce que dañ leen xoolee bët boo xamante ne bon yéen da ngeen fii wala da ngeen fii wala dafa am ñoo xamante ne nekkuñu ay vrai homme de homme de homme mais euh, dans l'idéal le combat c'est un combat très noble et liberté de la presse moom c'est toujours bien dans un pays bu nga xamante ne bon dafa nekk ci euh, démocratie combat de principe dafay nekk toujours ay combat yu noble la parce que li koy lu nga xamante ni lu dëggu la et ça c'est très important beneen groupe parlementaire démb def nañu conférence de presse. Mm-hmm. je pense que démb la dégg naa Kajoor muy wax ni que euh, moom il aurait aimé voir des gens comme Abdou Mbow bi coow li jubee ñu jóg jël ay position défendre seen candidat ba keroog ñuy gis la contraire. mais mel ni ñoom démb jóg nañ de Kajoor. Hmm? non mais jógu ruube la loolu <laughs> jógu ruube la c'est-à-dire que euh, euh, après boobu ñan nga gis boo xoolee ñan ngay gis ci plateau yi ñuy dem défendre Amadou Ba amul. ils sont ils sont cest à a la presse nga ñëw woote c'est trop facile woote conférence de presse nga ne tu défends Amadou Ba ban façon si si ñi koy défendre mhm. ñi koy défendre sont peu par rapport ak ñi waroon ñi ñi ñi waroon ñi waroon jug foofu laa foofu laay waxee euh, man li ñoom li ma leen di wax mooy Sénégal mu leen di xool parce que tey bu fekkee ñoom dañuy taxaw ne Amadou Ba euh, seen candidat la Amadou Ba la ñu taxal deram bi ñu taxalee deru Euh, ki nga xam ne moom mooy Abdoul mbaay par rapport ak affaire Hissène Habré mm-hmm. ñoom dañu dañu ne waxoon euh, dañu dañu dugaloon motion de censure mm-hmm. pour que ñu ñu ñu wàccee ko parce que nee nañu yee yaay dañ ko tudd ci ci ci mbirum Hissène Habré boobu noonu pourquoi ils n'ont pas fait la même chose ak ak Ba bi ñu ku euh, ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas ils procédé ainsi defuñu euh, li nga xam ne moom mooy motion de censure ils ont préféré sa à à à parti au parti démocratique sénégalais pour que loolu moo lay wone ils ne sont pas honnêtes dans leur démarche li leen tax a jug li leen tax a jug ak li ñu def sa sa ça c'est euh, diamétralement opposé maintenant nag sénégalais yi ngi leen di xool c'est-à-dire que ñoom bu ñu woowee presse bi wax mu ñu yaakaar ne ñoom li ñuy wax sénégalais gobe nañ ko mais ñi ñi ngi nax seen bopp les sénégalais am na fu ñu leen teg ba pare les sénégalais am na fu ñu teg parti démocratique sénégalais ba pare. Mhm. léegi nag bis bu yàlla defee élection am dinañu xam ne lépp dëgg la wax ji dootul amati de mais non. man peut-être dinañ ci ñëwaat mais man loolu rek laa mën a wax par rapport ak euh, bu fekkee dinañ ci ñëw mhm. peut-être mhm. avec les les, les la CEDEAO qui qui qui qui qui réagit ak yooyu noonu. Mhm, CEDEAO ñemewul sax tudd Macky Sall. Mm. à la place su mu war a tudd Macky Sall ne ko euh, faire respecter parce que c'est Macky Sall en fait. Ouais. c'est lui qui a repoussé les élections donc c'est à lui qu'on doit dire faire respecter ki à la place on nous dit Euh, la classe politique. mais mais ñoom tamit dañuy kii langage diplomatique. Hein, ouais, parce que langage mais on n'a pas eu le même langage quand il a fallu s'adresser aux autres pays yi def putsch. Mhm. on a tout vu le communiqué combien i les ces communiqués là combien ils ont été euh, incendiaires. Mhm. c'est-à-dire que ils même des noms voilà demuñu ci par le dos de la cuillère. non non donc pour Macky Sall il faut il faut il faut il faut émailler il faut tout man j'ai aimé le le le le communiqué par exemple de de, de du département d'État américain ñoom au moins ils ont été beaucoup plus trucs après on appelle waaye ouais, la population et la classe politique à veiller à ce qu'il y ait la la stabilité mais c'est à Macky Sall qu'on doit dire de veiller à ce que la stabilité reste dans ce pays parce ah, que oui. c'est lui qui a pris la décision mm -hmm. de reporter les de, de reporter les élections c'est à lui qu'on doit dire euh, de, de, de, de faire respecter et, et, et pas la population la population et la preuve euh, boobu ba léegi ñu ngi nii ku nekk di tout est calme te pourtant les gens sont meurtris donc c'est c'est à Macky Sall de de régler ce problème par, par la population par rapport à la euh, question Yaakaar ah d'accord bon man je man je regarde le mais j'ai trouvé un peu sincère en peu sincère bon voilà y avait pas benn alchimie boo xamante ne tu vois tu penses que ñii li ñuy wax boo dëgg la si ñoom. génn pour génn la quoi. Euh, en fait ils étaient obligés de de. sortir de sortir de dire parce que bon attaques yi bëri na. Ah et puis fronde yi nga xamante ne pour wax ne report bi ñun ñu si bëri na donc fale ñoom ñoo. Euh, ñoom ñoo entériné le vote donc fallait que ñoom ñu ñu génn wax de la même manière que aussi tamit waa waa PDS et puis bi nga xamante ni moom mooy défense bi pour Amadou Ba je trouvais la défense était trop molle ah ne bon. Amadou Ba ni euh, homme d'État waaw homme d'État la homme d'État la xaw ma pare pare man en fait xam nga ay député nga comparé ko ay ministre bokkul par exemple ñi nga xam ne ñooy ministre Kajoor boo je vous rejoins sur ça kan nga dégg ci gouvernement bi ñoo xam ñoo xamante ne ñoo soutenir Amadou gouvernement bi mais foofu lañ doon xaar peut-être gouvernement Macky Sall. bu fekkee bu fekkee dafa am benn sympathie autour de lui gouvernement bi ñi nga xamante ne ay ministre Amadou Ba lañ. Mhm. parce que si si protocole bi c'est comme ça ñoom ay ministre Amadou Ba lañu kan nga si dégg mu wax mais amoon na ay ministres yoo xamante ni eh, ñoom dañu affiché woon si côté Amadou Ba. Mhm. xam nga je pense au porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana je pense à Abdoulaye Seydou Sow mhm. ñooñu dañu taxawoon publiquement affiché ak ay Pape Malick Ndour affiché wu publiquement ñoom le ministre de l'éducation Cheikh Oumar Anne waaw mais ñooñu kañ nga si dégg mu wax ne. dafa si doon Amadou Ba mais député yi ils étaient obligés de sortir parce que dañoo am vindicte populaire bu nga xamante ni ñoom ñoo lëkkaloo ak waa PDS def. coup de jarnac bi nga xamante ni moom lañ leen di reproché ñoom ils étaient obligés et puis je dama leen fay je les trouvais un peu peu sincère franchement peu sincère pas convaincu du tout lu ñu doon wax dañu doon wax ni pour wax argument ba waaye Amadou Ba homme d'état la parce que lan mais mënuloo nekk si comment dire pouvoir nga ne premier ministre bi c'est un vendu c'est un fautif il représente rien du tout tu peux pas dire ça langage diplomatique nga mën def wax ne boo c'est un homme d'état loo xamante ni kay mënu ko dindi basta loolu kese nga mën def beneen bi nga xamante ne et foofu foofu la foofu laa jeexle moom mooy euh, euh, comment dire Macky Sall moom dafa war a xam ne mbir mi euh, c'est populaire c'est une mesure impopulaire parce que ñu bëree bëree bëri que ne à l'étranger que ñu nekk fi de maa ngi ko doon wax ne intellectuel dañoo war a wax heureusement ba ñoom ñuy wax mais artistes yi tamit aussi tamit dañoo war a tamit génn wàcc si mbedd mi intellectuel ba ñu waree wax du tey nag wàcc wàcc si mbedd mi wàcc si mbedd mi bind rek doyul da ngay wàcc ci mbedd bi acte citoyen loolu moom mooy loolu xeex pour lutter pour la démocratie loolu soo bindee da ngay wàcc jëfee lu nga xamante ne moom nga moom nga bind mu def ko même bu fekkee ne am nga imaginer par exemple artistes yi les intellectuels wàcc pour def marche marche pacifique mm. mais loolu kan moo leen ni ñi mee ñi mee gazé même suñu leen gazé sax ñoom ñooy toor parce que dëkk bu ci nekk nit yi am nga droit manifester. pour man loolu c'était la bonne méthode que ñoom ñu def malheureusement peut-être journée yi di ñëw dinañ ko def ay grève ay comment dire grève générale yooyu yëpp boo am na ay conséquences yoo xamante ni ñu mën na lor askan bi mais loolu wàcc si mbedd bi euh, pour def marche pacifique pour man loolu lu am solo loo xamante ni doo empêcher kenn xam nga xam nga Pape Mahaly dafa laaj laal état laal gouvernement par rapport ak euh, soutien bi manqué par rapport ak loolu li lay woon mm-hmm. euh, li nga xam ne moom moom moom moom la waa euh, Benno Bokk Benno Bokk Yaakaar ak PDS def nii mooy gis nga xam nga en même temps ñoom bi ñuy dugal seen seen euh, lii bi euh, au niveau du parlement là bi PDS di dugal di demande commission bi en même temps si la juge yi porter plainte xam nga mm-hmm. li ma la Et la plainte du juge, on n'en parle plus, dañ ko bloqué justement parce que juge boobu euh, plainte boobu noonu bu ñu ko diligenté woon automatiquement. Mhm. Euh, la commission bële day sauter. oui donc elle n'allait plus avoir sa raison d'être donc euh, juge bi euh, nu mu tëtin dossier bii nii moom moo naroon continuer ils ont fait exprès bloqué ko. continuer bi. continuer bi comme ça ils avaient cette ambition de de bloquer les choses loolu moo lay woon les combien les gens sont malhonnêtes dans dans leur façon de faire mm-hmm. te ah, dans cette malhonnêteté dañuy bëgg a emporter la nation sénégalaise te loolu nag ñoom duñ ko bañ c'est pourquoi j'ai j'ai été d'accord quand Pape Malick disait que les intellectuels les genre kii dañu dañu war a wax parce que après ñoom à travers leur leur leur leurs actes y ñu nekk di poser ils emportent toute une nation alors que mm-hmm. loolu warul voilà dëkk yëpp c'est leur rôle quoi. parce que ñoom en fait ñoo nekk entre relais entre les ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bas peuple bi. Mhm. parce que ñoom en fait ay leaders d'opinion lañ su fekkee ñoom taxaw nañ dinañ emporter. ñi nga xamante ne a xamante ne moom moo nekk report bi quoi. alors. fi muy jeexalee benn brèche bu ndaw lay doon CEDEAO wax na waa Washington wax nañu est-ce qu'aujourd'hui loolu mën na am benn effet bu immédiat pour vraiment respecter calendrier électoral bi le 25 je ne pense pas en tout cas moi. je te rejoins non seulement le coup est déjà parti mais euh, combien de fois la la CEDEAO a donné des injonctions. yoo xam ne euh, kenn faale ko mais non euh, le problème du du CEDEAO moo koy régler c' est les Sénégalais qui qui doivent régler ça les les réactions commencent maintenant si si ça se manifeste ñu dem ba benn moment ñu gis ne que euh, le monsieur il est resté dans dans dans, dans sa position. sur sa position j'espère bien que les Sénégalais ne vont pas laisser faire. Ah. mais du CEDEAO hein, mm. je pense pas que. bon même ah, bon une pression de plus même les comme les Américains ils ont parlé gars yi respecté Américains yi <laughs> bi ñëw na. Ah. parce que parce que bon je sais pas mbaa ñoom ñoo ñoom <laughs> mais mais bon gars yi respecté nañ leen quoi. Mm. Euh, parce que bon. j'ai lu quelque part benn benn livre boo xamante ne euh, Wade bi mu nekkee en 2012 bi ñu ko Macky Sall gagné. Mhm. Euh, bon y avait des gens yu doon wax ne Wade est-ce que du maintenir du maintenir au pouvoir affaire yooyu noonu après Macky ne ko Macky Sall mu ne <laughs> mu ne Macky Sall moo doon expliquer loolu quoi mu ne américain yi dañoo Ablaye Wade ko Ablaye da doon tergiversé ndax dinaa quitté wala du ma quitté nee na ñu ne ko <laughs> le game is over quoi <laughs> demal nga kii demal nga toog donc bon pour wax ne bon respecté nañ américain yi. parce que bon presque ñoom ñoo diriger di xool àdduna bi di di saytu donc presque suñu leen ko waxee dina benn pression supplémentaire boo nga xamante ne moom dina ko xam ba nga xamante ne date bu ñu bu ñu fixé 15 décembre que ñu respecté ko parce que il faut respecter ça au-delà de 15 décembre faut pas que waaye ouais, c'est-à-dire donc xool lu nga xamante ne noonu ngay defarawaatee affaire 15 décembre il faut partir quoi voilà décembre dañuy dañuy il faut il faut partir normalement 25 normalement avril c'était le avril ñu repousser ko ba 15 décembre il faut partir. mais décembre dañuy feetu. parce que parce que parce que y a y a en jeu non y a beaucoup de choses en ah. jeu quoi y a beaucoup de choses en jeu. Euh, mais man bon lu mënti xew du ma bett parce que tout simplement il y a eu des des des. day dire ay weddi ay waxaat ak yooyu noonu parce que discours 3 juillet bi tu pensais pas que Macky Sall euh, du ñu def du ñu def élection vingt cinq euh, vingt cinq février tu pensais pas ça donc 15 décembre bu fekkee dara dafay xewaat mën du ma bett parce que bon voilà on a déjà on a tout connu avec Macky Sall quoi. <laughs> voilà c'est un pou euh, fii pouvoir africain quoi pouvoir africain nii lay fonctionner quoi mais de façon un peu du lieu parce que li xew si yeneen dëkk yi moom je ne pense pas que ay intellectuels ñi mën nañu faa taxaw naan dañuy par exemple Congo ay intellectuels je ne pense Congo Brazza là bu c'est un peu mieux quoi Congo Brazza je ne pense pas que ay intellectuels ñi mën nañoo signer ay tribune collective di président bi na dem wala bu mu dem. très bien merci beaucoup en tout cas ci réflexion yi nga xamante ni poussé ngeen ko ci ponk yi ma yëkkati des leen ak ñun mbokk yi on va regarder un clip juste une petite pause musicale après ñu dikkaat ma dalal euh, sama naataango kii naa euh, ñu daal di wëyal li nga xamante ni moo di aventure matinale bi.